yuslix lakum acmaalakum wa yaxfir lakum dunubakum wa man yuti illaha wa rasulah faqad faaza fawsan azima sadaqallahu alazim loolu yóbbal la bu borom bi yóbbal ñi nga xam ne ñi ngi ci rixlatun ila daaril axira di tukki bi nga xam ne moo ne ci sunu kanam nun ñépp nu jëm ca nun ñëpp nu jëm ca borom subhaanahu wa taala wax nu ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te yëg na yéen a ngi ci tukki bi ragal leen yàlla tey wax wax ju jub mu ne ragal leen yàlla tey wax wax ju jub ndax wax ju jub baax na ci tukki bi waaw wax ju jub baax na ci tukki bi mu ne su ngeen waxee wax ju jub wax ju jub ja seen jëf yi defaroo ca te ku say jëf defaru yàlla suturaal la te ku yàlla suturaal topp ko yomb la te ku yàlla suturaal topp yonentam bi yomb la te ku topp yàlla ak yonent bi texe texe goo xam ne texe gu mag la yàlla nañ ko am ngeen am ko mbokk yi dama nekkoon ci lim tur yi nga xam ne moom la aljanna am tur yi nga xam ne moom la aljanna am limoon naa ci lu mat ñeenti tur tur bi ci boppam aljanna ñaarlu tur wa daaru salaam ñetteelu tur wa euh, daarul xuld ñeenteelu tur wa daarul muqaama waaw daarul muqaama ndeysaan sunu sunu bàjjan ba mère soxna Jóob yaayi Maodo yàlla ko yàlla yërëm waaw mu ne dafa bëgg kon bu génnee àdduna ñu yóbbu ko daaru salaam mu tudd <laughs> ndeysaan yàlla na yàlla mottali yéenam jëwaay tabarkalla tey damay ñëw ci juróomeelu tur ci turi aljanna yi muy jannatul mawa jannatu almawa turam wa ma nga ca suuratu najm waaw turam wa ma nga ca suuratu najm sunu borom subhaanahu wa taala wax ne indaha jannatul mawa almawa nag mooy soxukaay soxukaay mooy fi nga xam ne boo demee delsi ja waaw bu ko gileem defee ñu ne waaw bu ko ku dëkk fenn defee ñu ne waaw ndax ma waa fi ne boo amee kër goo xam ne gi yaa ko moom nga xam ne bu weer deexee doo fay mel ni mag suñ mbàkk si la xanaa da tëdd rek tabarkal la ci ngay xam ma waa ni mu neexe soo dëkkee ci kër goo moomut léeg-léeg nga seen borom muy ñëw di jël si luyaas bi <laughs> ndeysaan maag soxna ami ca sunu daara jële nekkoon ca ndeysaan golf léeg-léeg rek nu kuy jël si luyaas bi waaw ñu dajale lu bari un million trois cent takk ko ndeysaan yal na nu yàlla yërëm <laughs> loolu def dul am ci kër gi nga moom kër gi nga moom doo seen kenn mu ñëw di wut si bu tax bu la neexee jekk-jekkal bu la neexee wëlbati bu la neexee pentiiraat lu ne neex ko ci def ko ndax yaa ko moom aljanna ku borom bi subhanahu wa dugal foofa am na aljanna ju mel noonu nga xam ne tabaarakallahu bu ngoon jotee rekk nga tër si waaw boo xëyee boo xëyee xëy xaw ma fooy xëy nag ndax aljanna moom amul xëy daanaka waaw aljanna ju neex la yàlla na te dugg ngeen dugg ca ndeysaan aljanna ju neex la nee nañu aljanna jooju actuellement euh, mooy dalukaayu arwa u shuhada mooy ñi deexoon ci neex yàlla ashuhada mooy ñi dee ci li neex yàlla benn xëy nañ di ko xëyal mbaa ñu gontal ko mbaa ñu jóge ci xëyma di ñibbisi waaw mbaa ñu gont di ñibbisi waaye ña nga woon ca ca di xëyal yàlla mbaa di ko gontal la alayhi salaatu salaam waxoon ca muraabituuna ya rekk tabarkàlla waaw gu xëyal yàlla far des ca wala nga gontal ko far des ca waaw mu tax actuellement arwaaw shuhada waaw mu xaatil ak alkalbi ñoo ko wax ñoo wax ñoo wax loolu ñoo ne aljanna jooja ca la arwaaw shuhada yi nekk waaw yàlla na ci yàlla boole sunu gaa yépp ndeysaan waaw tabarkàlla te boole ñu ci ñun tam aljanna jooju nee nañu sax jibril ak mikaayil fa lañu nekk ñu ne jibril ak mikaayil fa la nekk loolu ata moo ko wax ak ibnu abbas ata ak ibnu abbas ñoo ne aljanna jooju actuellement fa la jibril campé <laughs> moo ko tabarkàlla malaaka ya wala malaaka yu bëree bëri xam nga fii dañu am ñun benn building boo xam ne dañ naan fële député ya nekk mosoon na fi am bokk benn hôtel des députés def naa la tuddoon waaw am nañu fi barab boo xam ne bi euh, fa ministre yi di dëkk waaw loolu yàlla def ko am moom malaaka yeeg seen patron Jibril ñoom ña nga dëkk jannatul mawa actuellement Ibn Abbas moo ko wax moo ko ata waaw sa Cheikh Tandian mi jàngi woon addis moom mën na lijjanti loolu lu ko yàlla yokk wér <laughs> waaw tubaarkàlla ndax suñu penc mi yi lu ne jàng nañ ko wax la ko tey waaw suñu penc mi tabaarkàlla gars yi lu ne jàng nañ ko kon jannatul mawa turam a ngi noonu turam it ñëwaat na ci saaruñ tudde annaziaat annaziaat euh, tur wa ñëw na ci waaw borom subhaana taala wax ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an il hawa fa al jannata hiya al mawa allahu akbar waawaw wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an ilhawa fa inna aljannata hiya almawa ndeysaan borom bi dina wax ku fa bëgg a dem nooy mel ak nooy def waaw borom bi moo nuy wax ku bëgg dem ca aljanna jooju nooy mel ak nooy def ni ngay def nii rekk la ba ci jiitu mooy xaafa maqaama rabbi allahu akbar rabbi muy génn kilifa gu mag gu ñuy wax jëla jëlalu wàcc ñu ci kaw suuf ne nu del leen bàyyi nu fi ñenn ñenn ca seen bopp ñenn ñenn ca moom waaw daf nu bind wàcc ñu ci kaw suuf rek bàyyi nu fi am ñoo xam ne ci seen bopp rek lañ nekk ñooñu agsi si àgguñ ci xaafa maqaama rabbi xaafa maqaama rabbi moo di tiit gi ngay tiit sa boroom yëg ne li ngay dox nii mi ngi lay gis ak li ngay jëf fi nga jëm ak lépp ak ki ci boppam ak ki ci moom waaw ak ki ci boppam ak ki ci moom xàmmee na leen kooku xaafa maqaama rabbi moo tax léeg-léeg mu dégg xayaa salaa mu yëg ne maqaama rabbi ëllëg bu taxawee ci kanamam dana ne ko waaw dat sàngam waaw dat sàngam ba ñu ne hayya ala salaa loola te wuy ji waaw loola te wuy nga ne nàngam nàngam mu ne loola ko te taxawal kon nga ne nàngam nàngam waaw at sàngam ba nga amee nàngam ci xaalis loola te génne azaka nga lay waaw at sàngam yoroon nga nangam ci xaalis am nga wér-gu-yaram lu la teewoon a dem màkk nga lay maqaama rabbihi yaatu na lool nit war ko bàyyi xel waaw saxaaba yi day ak mag ñi léeg-léeg ñu nekk la ci loo xam ne la sa yaram day daw ndax lan ndax xaafa maqaama rabbi ndax xaafa maqaama rabbi waaw ko xam ne ki loolu gaa yi naan wiiri wiiri jaari ndaari <laughs> loolu loolu wolof la lu yu fi yàgg tabarkàlla waaw lu fi yàgg ndax bukki bukki moo tudd euh, kër bukki moo tudd ndaari ñu ne bukki wiiri wiiri jaari ndaari waaw kooku nga xam ne moo ne inna rabbaka la bil mirsad benn port bi fi nekk nga xam ne mooy port bu jëm aljanna wala bu jëm alaxira ngeen baal ma porte booba sunu borom neena na du ko contrôler contrôloo kenn moo ko contrôler inna rabbaka la bil mirsad allahu waaw moo koy contrôler bu nit ki dikkee dugg biir xabroom ba Munkar ak Nakiir laaj ko seen ñeenti laaj yi sunu borom ne balaa jaar fenn dafa ñëw tontu ma tontul ma boppam waaw waaw waaw nag kooku xaafa maqaama rabbi muy waajal bés boobu du xëy ci lu yàlla gërëmut du gont ci lu yàlla gërëmut du gontal bakkanam mukk du gontal bànneexam du ko xëyal waaw moom daal xaafa maqaama rabbi loolu aw melokaan la ci ku bëgg a dem ca jannatul mawa muy benn bu ñaaral ba wanaha nafsa anil hawa wa naha nafsa anil hawa xam nga nafsoog hawa nafsu foo ko fekk ma nga jëm ci hawa wala boog loo ci ëpp ndax bakkan dafa tayal te bëgg lu neex ñu boole laag moom nga am ruux mu sawar te bëgg lu baax yow nag yaay arbitre bi yaay contrôleur bi bakkan dafa bëgg lu neex dafa tayal ruux dafa bëgg lu dafa nangu lu métti ci dafa sawar yow nag yaa diggante yaa nekk ci diggante bi mu tax bu nu yàlla baaxe woon ba nuy jàng sunu mag ñi di leen jàng ci sunu ekool te bàyyi maami jaambur yi nuy jàng ndax jàng maamum jaambur ba noppi niru sa maam yombut jàng maami jàmbur ba noppi niru sa maam yombut jox nit sa doom it ne ko jàngalal ma ko te la niru yombut ma ne bu ñu doon jàng maam yooyu ba àgg ci menn maam mu wax ci bunt bi waxam jure jooju ci raaya mam Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu mu ne xal bi qalbi lahu fi itaabil jismi takraaru allahu akbar li annahu lil huda wa nuuri jarraaru ma ne wax jooju bu ko ko gone jàngoon mag jàngal ko ko te xam orientation yi ci nekk gone mën na caa doxe baax ba faw malheureusement ñun dañ tubaab bee fexe ba nuy jàng ay maamam mu fexe ba ñu réere suñuy maam waaw tubaab bee fexe ba nuy jàng ay maamam jàng ay maamam tax ñu fonk ko moom tubaab bi ndax dañoo yëg ni ay maamam def nañ dara mu fexe ba ñu réere suñuy maam ñu defe ne suñuy maam defuñu dara mbokk yi maa ngi ci rixlatun ila daaril axira maa ngi tollu ci turi aljanna yi ak li muy tekki maa ngi tollu tey ci e, juróomeelu tur ci turi aljanna yi moo di jannatul mawa ma toll ci suratu naziaat ba fa yàllay wax ku bëgg a dem foofa nooy mel mu ne wa amma man xoofa maqaama rabbihi muy benn wana hën nafsa anil hawa muy ñaar wane hën nafsa anil hawa bakkan bi nga xam ne moom nga àndal bànneex rek waaw tabarkalla bànneex rek fi yëf ya neexee rek fa lay wax kaañ dem bu naqare mu la toogal boo suba <laughs> moo tax mbumbaay meeg pomeeg ndagara wala jeeg taas yi ñooy ëpp ñu fa ñëw ndax seeni bakkan la du ommat jëme leen fa boo demee da ngay paas waaw boo demee da ngay paas waaye bu dee bu safaan bi doo paas dara waaye doo gis kenn mu ne kon wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa nafs nag al imaamul busayri rahimahullah waxoon na ca téeréem ba waaw ca burdu wan nafsu ka tifli waaw wan nafsu ka tifli mu ne ko am doom boot roqan roggandi feral jot nga feral war nga caa jànge noo mën a yare sa bakkan ku am doom boot feral war nga caa jànge noo yore sa bakkan mu ne ha mu ne bakkan ak gone ñoo yem kepp ñu ne ko ha mu ne waaw mu ne nun ñéeg suñuy sikkim bu nu féralu toon ba léegi noo ngi nàmp seet <laughs> walay nun ñéeg suñuy bu nu féralu toon ba léegi noo ngi nàmp man de bi ma yàggee uufu yàggut bi ma bàyyee uufu yàggut isan <clears throat> bi ma bàyyee yaa su xam na ci dara waaw ak sama sikkim nag waaw <laughs> kenn mësu koo gis rek <sighs> waaw bi ma noppee gis yaa su rekk tabarkalla laa noppee uufu waaye bi ma bàyyee uufu yàggut <clears throat> mbokk yi genn naa ngi noonu yàlla nañ ci dugg suñuy waajur dugg ci ngeen dugg ci nun ñëpp nu dugg ndax xaj nañ ca jërë ngeen jëf ci ànd bi Sud seen rajo yàlla yàlla sàmm nu sàmm leen def jàmm ci réew mi ak sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seeni kayit bëgg la na firiñ fàncal xibaar trois firiñ fàncal leen ko ci wolof ñaanal leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu sponsor yii C3S mi nekk ci Kaolack di jaay yoo xam ne baax na sa doxu maag ak ñi mu ko àndal ñoom pën sëg bégeeg tànk ndox mii di waalo yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara ñu naan doon coxtaani moo di seen mbokk Alioune sal in uridu illa al islaah ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa wa barakaatu